tuiinuka ala alxayri faalam anna allaha yuridu bika alxayr boroom xam-xam bi nee na yow mbokkum jullit bi saa yoo gisee ne yàlla tabaraka wa taala dëppale na la ak ay àndandoo yu baax yu lay dimbali ci mbaax lépp lu baax loo yëkkati ñu jàpp ci xamal ne yow yàlla nammel na la yiw xamal na la yow yàlla bëggal na la ak mbaax ay mbokk yoo xam ne mbaax lañ la yéene ay mbokk yoo xamante ne lu baax lañ lay defal ay xarit yoo xamante ne lu baax loo jàpp ñu jàpp ci loolu saa yoo ko gisee rek yëgal ne yow yaa ngi ci yiw yëgal yaa ngi ci jàmm yëgal ne yaa ngi ci mbaax allahu akbar ay mbokk ay xarit yu baax yoo xamante ne lu baax lañ lay yéene lu baax lañ lay jàppale ci lu baax lañ lay dugal saa yoo gisee lool rek xamal na yàlla nammal na la yiw mu ne iza waffaqaka allahu liddu'a fa alam annahu yuridu an yutik yëgal ne yàlla bula la nammalee yiw dafay dafay dafay dugal ci yow nga koy ñaan tout le temps te yàlla bu la bëggalee ak ñaan yëgal ne yàlla dalaa bëgg a jox moo tax mu def ci yow ak ñaan ngay ñaan foo toll ndax yàlla subhaanahu wa taala defal la yiw mu ne iza waffaqaka li qadaai hawaiji nnaas su la yàlla dimbalee ngay faj aajo nit ñi faalam annahu lan yataxalla anka yëgal na yàlla du la bàyyi mukk ndax kat yàlla tabaraka wa taala bu la bëggee liggéeyloo rek su la bëggee fay rek daf lay liggéeyloo maadaama allahu subhanahu wa taala mu ngi lay liggéeyloo ngay la problème mu nit ñi yëgal ne yow yàlla du la bàyyi mukk mukk mukk mukk ci àdduna yàlla tabaraka wa taala mi ngi sa wet mi ngi sa kanam mi ngi sa ginnaaw tout le temps yàllaa ngeeg yow allahu akbar lu tax yàlla moo la bëgg a liggéeyloo lool moo tax su borom sunu borom subhanahu wa taala bi mu la bëggee fay rek daf laa liggéeyloo mu ne isa wafaqaka allahu li zikrihi bu la yàlla nammee nga koy tudd tout le temps foo toll sa làmmiñ bi di tudd yàlla guddeeg bëccëg fa alam annahu yuhibbuka yëgal na yàlla bëgg la na allahu akbar kon ndeke mbokk yi ay mbir a ngi nii yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala ku mu koy defloo rek am na lu mu bëgg ci yow sunu borom subhanahu wa taala bu la namma bu nammee ci yow nga koy tudd tout le temps def laa bëgg te yàlla bu la bëggee teddal la yàlla bu la bëggee dimbali la yàlla bu la bëggee nekk sawet yàlla bu la bëggee di nangu sa ñaan tout le temps foo mën a toll allahu subhanahu wa taala jalla jalaalu wa azza kamaalu dafay nangu sa ñaan kon mbokk jullit yi ay mbir a ngi nii yoo xam ne ku yàlla nammal yiw dong la ko yàlla defal moo tax kenn ci nit ñu baax ñi daal ñu koy wax ndax ñu war cee góor góorlu ñu war cee sonn guddi ak bëccëg alhamdulilah kenn ci nit ñi baax ñi kon loolu la ñu dénk mooy lan ñu ay mbokk yu baax yu ñuy yu ñuy jàppalanteel ñuy ñaan yàlla fu ñu tollu ñu xam ne yàlla tabaraka wa taala bu ñu liggéey loo ñu nekk ci liggéeyu nit ñi ci service nit ñi yàlla tabaraka wa taala du bàyyi yàlla bu nammee ñu koy tudd daf ñoo bëgg a jox te yàlla bu ñu joxee teddal ñu dimbali ñu nekk suñu wet nangu suñuy ñaan yàlla na leen ko yàlla defal ni ngeen taxawee ci liggéey bi nii ngeen taxawee sunu wet ci liggéey daara ji ci liggéey lislaam bi nii ngeen taxawee ci liggéeyu jullit yi nii ngeen di ñaanee yàlla guddeeg bëccëg pour liggéey bi sotti pour liggéey bi mat yal na yàlla tabaraka wa mate la noonu seen mbiw yal yàlla jàppale leen yàlla yàlla taxaw leen jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla boroom yiw àdduna borom yiw àllaaxira yal na yàlla yéwénal seen mbir yëpp jazaakumullahu xayran wa ayyadakumullahu wa nasarakum yal na leen yàlla taxaw jàppale leen fu ngeen mën a nekk guddi ak bëccëg jazakumullahu xayran